gaa yi ñu leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax di leen jox seen waay waaw ñu may leen tuuti rek ngeen ñëw incha allahu rabbi ñu mën a yaatal waxtaan wi ndax mu mën ñoo amal njariñ voilà donc da ngeen di partager ku dugg si rek mën naa séddale bu soobee yàlla incha allah comme saa ñu mën a voilà ngi jéggalu de waaw ñu ngi ziyaare bu baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay alors kiyal ma eh, fixel ma tiitre bi dama juumoon bu gaaw mais defal ma ko nii nii nii nag comme bi nga ma mujjee yónnee voilà donc euh, gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, xam naa nag dimanche bi bon repos dominical maanaam j'espère que noppalu ngeen bu baax ci dimanche bi euh, di déjà remercier euh, bu ma nee remercier nag c'est même pas le mot waaye tey li ñu bëgg a wax par remercier mooy dañuy simmil chapeau ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ànd sàmm jikko yi ndax euh, macha allah réussir nañu li nga xam ne moom la ñu bëggoon accomplir muy marche bu am solo bi nga xam ne euh, vraiment accomplir nañ ko tey ci Sénégal <coughs> donc ñu ngi remercier bu baax a baax a baax a baax a baax. Euh, suñu mbokk ànd sàmm jikko yi ñu ngi leen di remercier di leen euh, vraiment euh, chimmil chapeau parce que tey daanaka mën nañu ne xol sedd na bu baax a baax a baax a baax a baax bu ñu xoolee li ngeen accomplir foofu ci Sénégal macha allah ñu ngi jaajëfal doomu sénégalais yépp nag ndax sans lii du am effet. ndax doomu sénégalais fa mu nekk ci àdduna ñoom ñëpp gis nañu seen bopp ci lii nga xam ne moom la ñu doon xeex fële ci Sénégal muy mana keneen ak keneen ak keneen ak sam ak moroom ñun ñëpp rafetlu nañu li nga xam ne tey moom moo xew foofu ci Sénégal euh, vraiment ñu koy euh, saluer bu baax a baax di remercier nag ñëpp ñoo xam ne tey teewlu nañ fa ba aussi ñu daal di leen bëgg a euh, defal benn parenthèse bu ndaw rek euh, am na ay doomu aadama yu kiñaan yoo xam ne ñoom xam nga kiñaan ci nit la iñaan nit iñaan ci biir xol la maanaam doomu aadama dafa am yoo xam ne dañu lâche maanaam ils sont méchants dañuy kiñaan ba kiñaane seen bopp loolu am na nag ci ay nit waaye euh, ce qui est important mooy ñun ñi nga xam ne amuñu benn iñaan ci suñu xol yi te dañoo bëgg Sénégal ñun ñëpp nag ànd bëgg ko dina ñu continuer xeexal Sénégal de notre manière may aussi saluer ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, kilifa diine yi fa daje yëpp ak kilifa aada yi ak euh, aussi suñu yeneen naataango yi fa daje yëpp ma leen di wax rek ne euh, comme niñ koy waxee toujours président Ousmane Sonko nag c'est un homme chargé aussi te xam naa yéen ñi am ay intention yu baax xam ngeen Sénégal fu mu ko toll ak seen taxawaay bi fan la ko toll xam ngeen loolu donc je pense que man ma nekk fii sax di wax à la place du président Ousmane Sonko c'est peine perdue parce que nit la koo xam ne il bi il communique bien te wax dëgg yàlla lépp lu ko jaaxal wala lépp lu mu bëgg a ay kàddoom teg ci euh, dina ko yëkkati teg ci te defe naa ànd sàmm jiko yi bi ñuy woote euh, c'était la première personne bu ñëw waaye guddi ñu nekk tamit lu yëngatu bu ñëwee ñu ne politique bu ñëwul ñu ne politique donc euh, te on sait qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont toujours profiter de toutes les occasions possibles pour mën a dal ci kaw président Ousmane Sonko waaye man comme ni ma leen koy waxee toujours rek ñun du ñu sonn ñun président Ousmane Sonko dinañ ko sàmm même les lâches même les lèches-culs yéen ñi nga xam ne tey par exemple gëmu gëmu leen dara yéen maanaam ay ay càppaacol li ngeen maanaam euh, euh, euh, dugub bu ñu sànni ay picc ngeen donc yéen da ngeen di profité ci occasion bu ne pour gàkkal turu doomu aadama bi loolu du xew ci taawu président Ousmane Sonko ndax président Ousmane Sonko yàllaa ko dugal ci biir xol yi donc les les les lâches ak ñi kiñaan borom ñi iñaan vous allez maigrir loolu comprendre leen ko vous allez maigrir bientôt di ngeen commencer perte poids ba ñu leen di jox ay vitamines ngeen di naan pour wéraat ndax président Ousmane sonk amul ku nekk ci Sénégal bi ku mu bokkul ci sa xeex man Ousmane Tounkara gi Marius Sagna Abdou Karim Gueye yeneen activistes yëpp ndeysaan euh, euh, li ma dal ba mu ci wootee àdduna yëpp taxaw ci li dal Abdou Karim Gueye gis ngeen ko barki Dembo Ndiaye ba mu ci wootee àdduna yëpp dugal ci seen loxo li dal Guy Marius bu ci wootee ñëpp ñëw taxaw li dal kilifa bi mu ci wootee ñëpp ñëw taxaw et je pense que c'est important toujours ñuy jox nit kooku cëram rek te ñuy xam ne lépp du ko mën a fekkee nag parce que man dama comprendre ne c'est quelqu'un qui a un agenda très chargé te du mën a fekkee lépp ci Sénégal donc loolu la ñu amoon pour wax ko ci loolu Euh, léegi dañuy ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy embargo Sénégal bi assurer la relève il faut doomu aadama yi ngeen bàyyi xel bu baax li nga xam ne moom lay tàmbalee wax il faut ñu bàyyi xel assurer li nga xam ne moom mooy relève bi parce que dafa am embargo bu nekk diggante Sénégal ak Mali embargo boobu bi mu amee camion yi doon joge yeneen réew bëgg a dem Côte d'Ivoire wala jóge Sénégal Mali Côte d'Ivoire Alassane Ouattara dafa ubbil ñëpp bunt ñu dugg ci réewam ba pare mu tëj bunt bi bàyyi na ñëpp ñu dugg France menacé ne day arrêté volu Air France yëpp quelques heures après quelques jours après France ubbiwaat frontière boobu bàyyi ay avion réewam ñuy dugg ak a génn Sénégal benn doomu aadama boo xam ne il est con il n'est pas intelligent euh, muy Macky Sall mu soxor lool mu jàpp buntu yëpp tëj jàpp buntu yëpp ne ko rab tëj kooku di Macky Sall mais bi mu koy tëj bàyyiwul xel borom camion sénégalais yi bàyyiwul xel kenn moom dafa tëj lépp brusquement arrêté lépp portu Dakar frein transport yi nga xam ne borom conteneur yi nga xam ne ñoom ñooy dugg ak a génn ak Mali frein donc lépp loo xam rek mu nekk diggante Sénégal ak Mali Macky Sall la def ci benn fin bu total sans pour autant mu xalaat ci nag économie sénégalaise moom boppam rek la ci xalaat parce que moom. il veut toujours que France lui tape au au dos ne ko ah macha allah yaa def lépp xam nga frère et dinaa indi mbiru embargo bi léegi ma indil leen ko waaye dama leen di woon déjà France ni muy travailler ak président africain yi ak seen doom yi dañuy bàyyi ba ñu dugal alal bu bari France jël seen alal yëpp investir ko France je ne suis pas nag ndax dañuy sàcc alal bi buñ ko dépôt buñ ko indee ñoom ñëpp ñu dugal ko ci ay banque France jënd fa ay kër def fa ay ay bien buñ ko tabaxee yëpp ba pare lan la France di def France day daal di maanaam nu ma ko mën a waxee euh, siif ah France day daal di jàpp alal bi yëpp récupérer ko forfait ko ba pare tëj say compte bancaire yëpp xaalis bu ci nekk ñoom ñu jël ko loolu yëpp encore day delluwaat encore ci économie française maanaam lépp loo sàcc Afrique comme tey Macky Sall alal suñu alal bi muy luubal yëpp suñu alal bi muy luubal yépp di ko indi ci biir senegal bu yóbbu France waa France lan la ñuy def alal boobu dañ koy ne kepp jàpp donc euh, Fatouche Bal mu ne tu ne maîtrises pas ce que d'accord yàlla dafa am loo xam ne ñun daf ñu ko baaxee ci combat bi lépp loo xam ne dañ ciy dugg rek saa bu ñu yàlla dimbalee dañ ciy dugg ak preuve maanaam non seulement dañuy wax dara mais dañuy indi ay firnde tegal ko sénégalais yi pour firnde yooyu servir leen preuve moo tax lépp lu ñu wax dañuy indi vidéo yoo xam ne moom mooy dëggal li ñuy wax te incha allah saa bu ñu defee loolu rek lépp loo xam ne moom la ñu war a discuter ci cas boobu day daal di yomb gars yi dama bëgg a ngeen xam ne on na un président ki ne maîtrise pas comment une économie fonctionne. L'économie sénégalaise aujourd'hui buñ ko xoolee lépp loo xam ne Macky Sall bañal na ko Mali tey waa Mauritanie signal nañ ko Mali donc il suffit tout simplement que Mauritanie ñoom ñu jël li nga xam ne moom la Macky Sall bañal euh, euh, Mali ñu jox ko Mali et exactement Mali day njariñu ci li nga xam ne moom la Sénégal doon njariñoo donc Macky Sall ambargo bi mu def dafay yëkkati Mali suufeel Sénégal lée euh, dafay yëkkati Mali yëkkati Mauritanie boo pare wàññi senegal léegi ma ñëw tegal leen li nga xam ne moom mooy vidéo bi nga xam ne moom suñu mbokku malien yi ndeysaan signé nañu li nga xam ne mooy accord ak moritani damay indi vidéo bi ma tegal leen ko bismillah Par cette signature du protocole d'accord, Maliens et Mauritaniens formalisent officiellement leur désir de renforcer leurs échanges commerciaux. L'acte a pour but de faciliter le trafic routier inter-État de marchandises sur le corridor Nouakchott-Bamako. La Mauritanie, en mettant son port et les autres infrastructures à la disposition des opérateurs économiques de notre pays pendant ces temps difficiles, réaffirme sa solidarité au Mali et le ministre je viens avec un message de la part des plus hautes autorités de la République pour d'abord remercier le dynamisme de la République islamique mauritanienne par rapport à la manifestation de sa solidarité vis-à-vis -vis du peuple malien dans des moments aussi critiques. Parce qu'on dit c'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses amis. Je serai l'ambassadeur de cette rencontre au, de, euh, au pays pour montrer la dynamique des autorités la Mauritanie pour accompagner le Mali. Ce n'est pas seulement l'utilisation du port, mais c'est aussi l'utilisation de toute la production industrielle de la Mauritanie dont on a besoin. C'est de mettre ensemble les opérateurs économiques du Mali et de la Mauritanie ensemble. Et je pense que c'est là que les populations aussi vont bénéficier. Pour son homologue, Madame Naba Mintek Amdi Oudou Mougas, cet accord redynamisa les relations économiques entre nos deux États dans un partenariat gagnant-gagnant. À l'issue d'une conférence de presse, les deux présidents de Chambre de commerce expliquent le bien fondé de ce document qui vient d'être paraffé. Aujourd'hui, nous venons, je pense, de franchir un pas qui est extrêmement important à notre niveau en tant qu'opérateur. Nous espérons concrétiser des choses réelles qui vont contribuer à un échange fructueux qui va permettre au Mali bien s'approvisionner à partir de la Mauritanie et qui va permettre à la Mauritanie de servir le Mali à travers sa porte maritime. En transit routier inter-État, ces marchandises auparavant étaient euh, avec difficulté parce qu'il fallait euh, fournir des cochons bancaires enfin que la douane vous, vous de passer, qui coûtait excessivement qui était d'ailleurs un, point, de blocage par rapport au, au trafic malien. Avec cette signature de ce je pense qu'une grande partie du problème vont être réglés. Cet acte de haute portée économique pour le Mali est posé en présence de l'ambassadeur du Mali en Mauritanie et d'une forte délégation d'opérateurs économiques. Voilà. je pense que dégg ngeen li nga xam ne moom la ñu waxtaanee fii léegi donc Mali signe na accord ak moritani lépp loo xam ne tey senegal mi ngi ko doon liggéey ak Mali léegi Mauritanie mi ngi koy liggéey ak Mali il suffit tout simplement ñiy jële seeni ay conteneur fii ci réewu tubaab yóbbu ko directement moritani lépp loo xam ne loolu lañu ñu war a liggéey foofu ci moritani ci Mali day continuer le seul perdant ayant les sénégalais dama bëgg gars yi ma indi benn boo xam ne dama bëgg ma won leen ko te mu doon lu important lool jéggal leen ma une allo voilà gars yi maa ngi jéggalu gars yi bu ñu nekkee di wane ay vidéo boo leen ñu wone wooyee ci téléphone yi day planté boo leen xoolee léegi fi mu ne téléphone bi écran ba sax fay na nuwaar na carrément mais léegi boo leen xoolee li nga xam ne moom la ñuy wax léegi ne leen problème bii moo xew diggante senegal ak Mali le sël problème est ki nga xam ne mooy ñun suñu njiit ci senegal muy Macky Sall ba muy teg Mali embargo bi moom boppam dong la doon xalaat ak intérêt pré ak intérêt France xalaatul intérêt sénégalais yi par kont France mi nga xam ne moom moo leen dugal ñoom ci embargo bi France dafa assurer sécurité économique d'abord parce que France dafa dafa arrêté woon les vols d'Air France ver le Mali waaye si saa si daf ko ubbi parce que effet bi loolu di am ci économie mais Mali dàq na France mu fekkee yeen xool ngeen embargo bi yëpp li ko lal mooy France moo bëggut a Mali embargo bi yëpp loolu moo ko sana ça n'a rien à voir le Sénégal avec ses intérêts ça n'a rien à voir la Côte d'Ivoire avec ses intérêts ça a seulement à voir avec la France e ses intérêts léegi France ak intérêt yooyu xool leen tey ñaata la nekk di coûter Sénégal bu ñu leen di ne France gàllankoor la ci ay réew xool leen problème mu embargo bi France mi ko ex mi ko imposé Macky Sall ak ala Alassane Ouattara xoolal ñaata sénégalais ñoo ciy souffrir dama leen di indil tuuti extrait la benn la rek ci téeméeri téeméeri problème yi fa xew nii rabrousse bi laa yor taxaw nañ fi depuis vingt cinq jours ñu ngi ne daanaka am ñu lu lekk am ñu lu naan affaire bi métti na trop nañ ñu dimbali ngir yàlla ñu a dem affaire bi métti na trop vingt cinq jours nga taxaw ko fi yaa ngi yore njaboot yaa ngi yore war a def foofa war a def fi dara affaire bi métti na nañ ñu dimbali ngir yàlla fii ni métti na trop fii poussière na te aussi tamit suuf si baaxul suuf si day yàq ay tànk yére yoo sol mu balaa balaa suba mu tilim nañ ñu dimbali nañ dimbali wax ñu lu leer tey suba tey suba tey ak suba ba kañ Toevermieten dorp Schrei. On est à moitié en chômage, quoi. pour ceux qui en ont des qui les nourrissent donc euh, c'est pas facile pour tous les gis ñoo xamante ni bu ñu chargé woon cinquante tonnes ñu ngi chargé cinquante cinq cinquante cinq tonnes te ak përe yi nii comprendre nga ak naaj bu tàng bi nii chargement bi taxawaay bi nii waaw baaxul ci quoi bon di nga gis fii ñoo xamante ni déjà seen pneu yi commencé perdre yàqu. comprendre nga te presque li ñu yore woon yëpp yëpp yëpp yëpp essence yi dépassé nañ ko jeex na ba ni ñuy wax ak yéen ñi dese wuñ dara li nga xamante ni. genre mën nañu war a mën a jaarale quoi. a yi yëg nañ mbir mi lan ñoo faalewul dong mais yëg nañ mbir mi bu baax a baax a baax a baax bu fekkee ne la sant samp transport ba suñu joon yàlla tey mosuñu laa faale boo nekkee ci problème bu mel ni duñ la faale. affaire bi métti na de métti na trop kay ñu ngi fi depuis presque ay vingt cinq jours su wari amatul noonu nekk presque affaire bi métti na trop. nan ñu dimbali ngir yàlla fa tijjil ñu volontaire bi ñu jàll donte une semaine lañ ko tijji boo xoolee tey jii oto bi ñu taxawee ba léegi calculer journée six mille six mille wala huit mille huit mille ak aussi ndox meek li ngay fóotkat yeeg ñi li ngay fay lépp boo xoolee daal chaque jour daal boo xoolee dix dafa day waaw man de maa ngi nii door a añ sax sama bool yaa ngi nii ndoxu glace gaa ngi nii wax dëgg yàlla dañoo nekk di lepp di lekk. xamuñu nag ndax dinañ ko mën a fayam déet suñ ko mënee fay nag moo ñu gën gaa yëpp ñoo fi gisoo leen ñoom ñëpp buñ xëyee ñoom emprunté yi rek lañ bàyyi si oto yi chauffeur yëpp ñoo ngi nii pour waajal pour mën a togg aussi bàyyiwuñ bambara bàyyiwuñ Sénégal bàyyiwuñ Ivoirien bàyyiwuñ kenn. mën yi lan moo tax ñu taxaw. bii mooy sama kar yow mu ngi nii oto brousse bii laa yor taxaw nañ fi depuis vingt cinq maa ngi nii door a añ sax xamante ni dèjà comprendre nga te presque li ñu yore woon yëpp yëpp yëpp yëpp essence yi dépassé nañ ko jeex na ba ni ñuy wax ak yéen ñi dese wuñ dara li nga xamante ni genre mën nañu war a mën a jaarale quoi. autorité yi yëg nañ mbir mi dañ ñoo faalewul dong mais yëg nañ mbir mi bu baax a baax a baax a baax nit nag bu fekkee ne la sant samp transport ba suñu joon yàlla tey mosuñu laa faale boo nekkee ci problème bu mel ni la faale. affaire bi métti na de métti na trop kay ñu ngi fi dippi presque ay vingt cinq jours su wari amatul lu nekk presque affaire bi métti na trop nañ ñu dimbali ngir yàlla fa tijjil ñu volontaire bi ñu jàll donte une semaine lañ ko tijji. boo xoolee tey jii oto yi bi ñu taxawee wa léegi calculer journée six mille six mille wala huit mille huit mille ak aussi ndox mees li ngay fóot kat yeeg li ngay li ngay fay lépp boo xoolee daal chaque jour daal boo xoolee dix mille dafa day dee. waaw man de maa ngi nii door a añ sax sama bool yaa ngi nii ndoxu glace gaa ngi nii wax dëgg yàlla dañoo nekk di lepp di lekk xamuñu nag ndax dinañ ko mën a fayam déet suñ ko mënee fay nag moo ñu gën gars yi yëpp ñoo fi gisoo leen ñoom ñëpp buñ xëyee ñoom emprunté yi rek lañ bàyyi si oto yi chauffeur sëpp ñoo ngi nii pour waajal pour mën a togg aussi bàyyiwuñ bambara bàyyiwuñ Sénégal bàyyiwuñ Ivoirien bàyyiwuñ kenn bana yi lan moo tax ñu taxawal ko dañoo dem ba benn instant maanaam boo xoolee xaalis bi moo commencé jeex xaalis bi ku ne la yor na fi xaalis bi waxul am ñun ñëpp commencé jeexal ñun ñëpp jeexal nañ boo xoolee ñuy jaay day des boo jaayee nekki day des boo jaay añ day des boo jaayee reer day des dañuy obligé dañuy obligé wàññi suñu dafa daanu carrément. liggéey moom daal lu mu doon daan liggéey ak tey du doon benn parce que oto fi daan na bëri fermeture euh, frontière bi tuuti nañu lu bëri parce que oto amatul léegi camion tawatuñu euh, liggéey bi dafa xaw a freiné par rapport au début début bi oto yi dañ doon dañoo ëpp ay plus de cent camions doon doon ñëw fii te aussi seen jaay bi doon amoon par rapport ak fermeture bi ne instant yii nii jaay bi amul noonu dafa wàññeeku. nekkul si dara aperture yu dañu jékki-jékki oto yi bari fii carrément ma ne waa lii lan la boo ne CEDEAO xaw ma je ne sais pas dañoo Mali bi parce que économie bi da koo rey dara du dara du génn gisatuñu client auto transport en commun mooy poids daan jàll di dem ki mu may gérant fast bi. tant d'autres ñu ngi ci biir am ñu nekk ci biir cuisine bi aussi laa fi yor boo ne bii chaque mois dañ leen di fay mais ñoo ngi nii toog liggéeyatuñu dara bu ba sonn lii moom war nañ si jóg CEDEAO war na xoolaat lu muy def baax baax baax. et ça benn problème bu ndaw rek lii problème mu frontière la ñuy wax nii camion borom camion yi rek waxuñu commerce bi waxaguñu sax commerce bi ci boppam ak li nga xam ne moom la ñuy def chiffre d'affaires ak Mali par an weer bu ñu taxawee on perd quarante millions weer bu ñu taxawee on perd quarante millions weer bu Sénégal ak Mali problème amee on perd entre quarante et cent mili cent milliards parce que on fait un chiffre d'affaires de presque cinq cent et quelques milliards par année avec le Mali donc tey weer bu ne donc weer bi ñu jàll nii rek Macky stade boobu muy dem inauguré jël na xaalis bu toll noonu sànni ko ci poubelle bi au nom quoi exactement au nom de quoi nañu Macky Sall wax ñun au nom de quoi les sénégalais perdent aux environs de trois à quatre milliards ci réew moo xam ne lekkuñu on n'est seulement que 17 millions de personnes 17 millions 17 millions lañu 17 millions on est 17 millions de Sénégalais bis bu yàlla sàkk nu perdons aux environs de trois à 5 milliards de francs CFA. Sénégal à ce rythme ñaata temps lay jël balaa ñun ñuy du continuer dund parce que fi ñu toll nii Macky Sall mi ñuy amener à genoux mi ngi indi économie sénégalaise à genoux parce que ku ne dund seerul <laughs> mais pourquoi denrées yokku tous les denrées sont augmentées ndax yàpp bu yokkoo rek lépp dina yokk yàpp bu yokkoo diw yokk jën yokku lépp lépp lépp yokku on a un problème catastrophique devant nous te sénégalais yi noppi nañu parce que Macky bokk na kubba dem na nee na mi ngi waaj a inaugurer benn stade je me damay laaj question la damay laaj sénégalais yi rek ñun fu ñu tollu fan la ñu toll fi mu toll nii where we are on en est où fan la ñu toll damay laaj rek asalaamaaleykum. waaleykum salaam Tunkara ziar naa la. sëñ bi ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax a baax a baax. bu baax a baax a baax kontaan naa trop. waaw bismillah. daanaka Mali. Mhm. dafa laal poosu France. Mhm. xam nga poosu xol. Mhm. la France defoon foofu Mali Sénégal yëpp. ba Mali ne day ci poosu xol bi. France dafa am lu ko metti que dafa am un manque soo xoolee histoire Mali bi. 2013. PDG Total. Uh-huh. dafa wax ne nouveau Eldorado moom mooy nooru Mali bi. Uh-huh. loolu loolu lañ si war a comprendre. Uh-huh. mooy tout ce uranium. pétrole ak ressources yi nga xamante ne ñoom seen ressource dëkk da nga ko soxla. moo am foofu. zone boobu. Maliens yi bëri na luñ fay dem mais amuñu capacité de développer ko. ñu xool instrumentaliser zone boobu noonu dafa am benn peuple bu ñuy wax les Touareg mhm. ñooñu ñu Mali bokkuñu Algérie dañuy wër seen bopp mhm. parce que suñ demee Mali c'est seen couleur de peau suñ ko xoolee dañ leen naan duñu malien mhm. suñ demee Égypte euh, suñ demee Algérie xaw nañ niroog algérien tuuti mais duñu ay ñu duñu ay algérien mhm. léegi ñoom ñu bàyyi leen foofu mhm. foofu noonu ñu nekk mhm. dañoo nekk ci wetu ndox mi des petites oasis léegi ñooñu ba lii bi amee problème ñoom ñoo daw dem jàppale ñu à libyen yi ba ñuy am ay armes ñu duma ñi nga xamante ne militaire malien yi nga xamante ne ñoo dem contrôler mhm. militaire malien yooyu ñoo dem mer ànd ak capitaine Sanogo dem wàcce Amadou Toumani Touré. lé léegi question bi grand xam naa loolu loolu dinañ ci gën a développé. Mhm. mais mais tey déjà ci problème mu embargo bi nga xam ne Sénégal mi ngi souffrir loo Mali. Mali di mhm. souffrir loo Sénégal parce que tey mhm. ñun ñëpp xam nañu économie Sénégal dafa dépendre ci Mali comme ni économie mhm. Mali dépendre dépendre woon ci Sénégal waaye dafa mhm. mel ni Mali moom mi ngi wut saafara ci problème am léegi problème mu Sénégal moom lu koy saafara ndax Mali mi ngi dem mi ngi dem Mauritanie Mali conteneur yi mu waroon dugal ak transport bi mu waroon def digganteem ak Sénégal moom mi ngi dem Mauritanie dina mën a jënd dina mën a jaayaat moo mook Mauritanie léegi nag Sénégal moom nous on en est où voilà ñun. waaw est soo xoolee démarche suñu président bi nga xamante ne mooy ñuy servir de président. Mhm. deful dara dafa toog di xool. Mhm. parce que moom il jot des instructions. Mhm. ñu naan ko defal lii defal lii. Mauritaniens yi. ñoom gis suñ ko ñamee. d'ici les prochains mois. ñu gis xaalis bi ciy développé. Mm-hmm. dinañ gën a investir dans les routes. Mm-hmm. investir li nga xamante ni mooy tax seen conteneur yi di dem. Mm-hmm. loolu day déplacé day déplacé boobaa nag li nga xamante ni Sénégal yëpp moom la waroon am. dem na Mauritanie. Sénégalais yi nañ xam ne instant yi nii fu muy gën a jëm di gën a metti surtout ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ay zone Kidira ak Tambacounda yooyu. parce que camionneur yu daan jugee. port de Dakar di aw yooyu yëpp dañuy dañoo daan dépensé fu ñu dem escale dépensé fa. Mhm. jënd fa toog maire yi di jaay lépp au alentours du développement. oui comme train wu Mali moom daan def mais mais ñooñu dañuy perte sànq vidéo bu nga taal nii nañu xool ba ci kii ça va devenir aride. suñ si deful ay sànq suñ si. mais Sénégal kii fa ngi waaj a ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñun famille moo ñuy waaj a dal on aura des problèmes un pays sous-développé bu mel ni Sénégal buy perte aux environs de cinq à dix à quinze milliards par jour la perte par jour loolu mi ngi mel ni nga dagg di naaj te taxa arrêté wuloo deret bi mais hémorragie bi da ngay dee tu vas va être plus que six cent milliards xamul lu tax ma la xam nga xaalis yi nga xamante ni conteneur yeeg yooyu noonu ça fructifie yi nga xamante ni comme nii soo jëfee sa conteneur nga jëlee ko Chine indi ko pour mu dem Mali xam nga prix bi changé na yow il faut nga actualiser say prix. exactement. donc loolu du cent milliards sax ça va être plus te li nga xamante ne moo nekk loolu mooy économiquement yi nga xamante ne dañ koy contrôler. Mm-hmm. mais li nga xamante ni contrôlé wu ko Sénégal nit ñooñu daan dundee ci xaalis bu ndaw l'informel l'informel jaaykatu gerte bi jaaykatu mboq bi jaaykatu meew bi jaaykatu restaurant bi jaaykatu pëna bi jaaykatu pëna bi ak luuma yi waaw ñoom ñëpp donc askanu Sénégal ñoo war a xam ne ñoo war a jóg poisson pourri la ñu am ci kaw nii exactement te poisson pourri soo ko lekkee intoxication donc suñu économie mooy jëm ci intoxication nii fu mu toll gis ngeen ne seen dund bi cher nag diwlin yeeg et cetera on va encore parce que monde bi moo nekk di changer avec euh, benn vitesse boo xamante ni yow soo préparé wul doo si bokk maa ngi lay jërëfa jërëjëfal bu baax. merci beaucoup merci grand merci. voilà donc euh, gars kooku nekkoon suñu benn frère bu intervenir donc képp ku bëgg a intervenir man ngaa intervenir dañu bëgg a xam effet bi nga xam ne tey yow doomu Sénégal embargo Macky sàll bi amal na ko ndax suñu yaay yiy jaay gerte diggante Dakar nekk ci tali boobu Mbour euh, Kaolack dem côté yooyu yëpp ba Mali je pense que jaaykatu gerte baa ngi fay torox jaaykatu sow baa ngi ci problème jaaykatu mboq baa ngi ci problème jaaykatu restaurant baa ngi ci problème maanaam ñëpp ñooy sentir asalaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam ñu ngi lay ziyaare. embargo bi embargo bi la ñu bëgg a ngeen wax ñu ci seen xalaat lan ngeen yaakaar ne tey moom la doomu Sénégal yi di dundu diggante dakaar ba Mali. ba Amérique fii sax Amérique fii les Maliens mes frères malien ñu ngi fii ils sont mhm. là. Mm-hmm. parce que maliens yi maliens yoo xam ne sénégalais yi ñoo leen daan indil ay conteneurs les camionneurs sénégalais en en mm-hmm. commençant par moi-même mm-hmm. ñun dañu doon dund ñun dañuy dund ci économie Mali bi parce que maliens yi nekk fii ñun ñoo leen di jox conteneur conteneur yooyu la ñuy yóbbu ñoo ñu ñooy jógee dakaar tamit dem Mali on a beaucoup de clients maliens ici ñun ñu ngi koy sentir cet embargo ñun ñu ngi koy sentir non dëgg la parce que boo xoolee dafa am benn affaire boo xam ne dafa am quoi parce que boo xoolee maanaam France dafa jël lépp contrôler ko jël lépp def ci def boppam parce que li li ñu wax sànq rek France day ay intérêt boppam da koy protéger de un. Mhm. parce que boo xoolee Sénégal par exemple li ko Mali amal importance. Mhm. France amalu ko ko. yaa ngi dégg. Mhm. boo xool liy dugg ci ay milliards ci diggante France ak ci ak Sénégal France dugalu ko ci. France moom day ci bëgg yóbbu rek. Fra day tibb di yóbbu te boo xoolee par exemple léegi di dund bi seer na yàpp léegi di boo demee léegi kilo wooy yàpp ñu ngi la ko jaay quatre mille cinq cent léegi trois mille cent la doon jar léegi quatre mille cinq cent. léegi mu yàgg dix mille léegi mu yàgg dix mille ma gi moo commencé di seer te gi nga koo xam ne yow yàpp da laa da laa seer ceeb seer la dëwlin seer la. suukar seer la bu yàgg genre guerre civile lañ fi la fi Macky Sall di parce que Macky Sall léegi ko que léegi nee nañ. moom mooy le nouveau chef de l' Afrique moom la ko gars yi tuddee léegi tubaab yi maanaam ku ci bëgg sa bojo bojo bu ne ci moom ngay jaar mu réglé la ko sans problème mais Macky Sall yërëmul population bi. parce que ki nga frontière balaa ngay embargo sa diggante dëkk dëkk lu mu ndaw na sax permettre sa population ni leen eh man de frontière bi dans une semaine wala dans un mois dinaa ko tëj Sénégal la bu fa nekk may naa ne un mois nga jël sa camion nga ñëw ñibbisi mais nga jékki-jékki rek tëj frontière bi mel ni yow yaay buum di bommi en tout cas daal. lii daal nañ ci jóg daal métti na trop trop trop trop trop waaw jërëjëf Faye ñu ngi siyaar ñëpp. jërëjëf voilà tey boo xoolee exactement li xew diggante Sénégal ak Mali les mécaniciens souffrent les soudeurs souffrent les camionneurs souffrent les commerçants les baana baana lii waxuma sax mois je par la pas des formel je parle de l'informel mooy doomu aadama yi nga xam ne du ñu li nga xam ne mi ngi xew seen diggante waaye ci camion yi romb ñoom ci la ñuy lijjanti seen dépense Paris avait arrêté ses vols Macky waa France dañu arrêté woon seen vol Air France dafa arrêté woon ay volam international diggante mag Mali ça n'a même pas duré quarante huit heures Macky automatiquement il a repris ces vols donc exactement Macky c'est quoi le problème le problème c'est le Mali où tu veux en en réalité faire souffrir les Sénégalais parce que yow Sénégal intérêt Sénégal lañ la fa tegee on t'a mi là tout simplement pour les intérêts des Sénégalais ñun indiwluñu la fi sax pour intérêt Afrique wala intérêt France wala intérêt beneen réew déedéet suñu intérêt ñun sénégalais yi d'abord ndax balaa ngay bare kër jàmbur mu set nga defar sa bos ba pare donc ñun balaa ñuy jóg di xeexal Mali di xeexal Mauritanie di xeexal Tamba di xeexal beneen réew ñun d'abord les sénégalais les sénégalais d'abord mais les sénégalais aujourd'hui lan la ñuy dund on vit quoi Macky li ñuy dund est-ce que yaa ngi koy gis est-ce que yaa ngi bàyyi xel say doom est-ce yaa ngi bàyyi xel doomu sénégalais yi est yaa ngi bàyyi xel doomu sénégalais yi d'abord sa sa doomu sénégalais yi nekk ci frontière bi amatañu lu ñu lekk est-ce que gouvernement Sénégal mi ngi leen di livrer lekk livrer leen ndox parce qu'il ne peut pas faire demi-tour ah parce que ku yenu ab conteneur jàmbur yenu ay marchandises u jàmbur noo koy def tu fais quoi avec da koy luubal danga koy sàcc da ngay jël marchandise bi jaay ko lekk xaalis bi mais y' a problème Macky les sénégalais souffrent les sénégalais souffrent ton problème yow tu ne comprends même yow nekkuloo di toroxal beneen réew bu dul say doom France ngemb na la ñu lay jay ñu ne la tu es à la tête de l'Union africaine tu vas régler les problèmes le problème des Français en Afrique Macky toi tu peux régler quel problème Quelqu'un qui ne peut pas régler le problème de son pays, comment il pourra régler le, problème de notre pays Toi, tu as quelque chose dans ton pays, tu as une patate chaude dans ta main. Comment tu peux régler le problème d'une autre personne Maki, le Sénégal est instable. mbiru góor jigéen baa ngi nii mu mel ni tulleeg male mbiru politique u Sénégal a ngi nii ton petit frère on vient de le battre à Guédiawaye il est en train de faire de la forfaiture les élections locales ont passé au Sénégal tu as perdu à presque quatre-vingts pour cent et tu es en train de forcer les élections aujourd'hui les, les les commerçants sénégalais les les petits bana bana les chauffeurs de camions les transitaires et euh, euh, consorts, les douaniers sénégalais vont commencer à chômer, Maki. Les douaniers sénégalais vont aller en chômage, comme les AFP. Parce que tu ne pourras pas les payer. Avec quel salaire Toi, tu penses que le, le Mali va changer d'avis Le Mali ne va jamais changer d'avis. Les Maliens ne vont jamais reculer. C'est des fils dignes. C'est des descendants de Sundiata Keita. Ils ne vont pas reculer. c'est des descendants de Samori Touré ñii du ñu dellu ginnaaw ñii du ñu wàññi du ñu dellu ginnaaw Macky yaa ngi def erreur mortelle et on on le répétera dans quelques mois dans quelques semaines on viendra et répéter ça dire que Macky a été Macky a Macky est chuté du Sénégal parce que le problème du Mali mais problème mu Mali bii Macky da lay daan lii fu mu jëm. suñu yaay biy jaay gerte léegi loo bëgg mu dunde suñu yaay biy jaay meew il mange quoi elle mange quoi suñu papp yi MNA sa bétail bétail bi ñu doon indi xar yeeg nag yeeg consort yàpp bi ñu daan mais arrête Macky arrête mais trop c'est trop embargo bi dafa war a arrêter immédiatement Il est temps que tu dis merde à Macron et, et arrêtez ses intérêts français même au Sénégal. <coughs> Ce que le Mali est en train de faire, c'est la seule solution pour s'en sortir. Si quelqu'un te boit le sang matin, midi, soir, tu laisses, il continue à boire ton sang, lui, il va bien vivre et toi, tu vas mourir. Si le Mali n'arrête pas la France, le Mali va mourir. Et aujourd'hui, on a le même problème au Sénégal. Macky tu ne peux pas nous dire que tu aimes pas de possibilité boo xam ne ñun man nañoo toog en tant que sénégalais on nous dit que Macky aime son pays c'est pas possible loolu mënta possible amul boo xoolee tey nee naa leen boo xoolee Sénégal Mali euh, euh tey Mauritanie moom moo ëpp frontière digganteem ak Mali Mauritanie moo ëpp frontière digganteem ak Mali carte bi moo nekk ni boo leen xoolee Mauritanie moo ëpp frontière second bi Algérie mais Sénégal ak Mali ñun suñu frontière matul réyaay boobu Mali Macky yow mënuloo toroxal ay sénégalais Est-ce que tu sais que tu vas rendre la Mauritanie riche et tu vas t'appauvrir de plus encore parce que man li gëm am na foo xam ne boo fa yeggee ak maliens il ils n'auront plus confiance en toi même boo ubbee say frontières li nga sëkk ak ñoom rek la ñuy jël dugal ko ba pare ñu bala et maintenant tu as tué le commerce sénégalais mais Macky tu es en train de transport sénégalais est-ce que yow yaa ngi ciy bàyyi xel mais où sont les économistes sénégalais ana économistes sénégalaises yi fu ñu ne suñu ay économistes yéen ñi dem jàngi yéen ñi nekk ak Macky nekk ci wetam te ngeen war koo wax dëgg ci intérêt Sénégal mais foo leen nekk man mi jàngul économie xam naa ne économie Sénégal mi ngi ci paralysé parce que li ëppoon njëriñ ci senegal mooy train bi xool leen voie train bi Macky bañoon defar déjà léegi xam nga mbir mi mi ngi ñëw ndànk-ndànk Mati Macky a pris mille milliards il a mis sur le train express régional te newoon nañ ko avec trois cent milliards il peut améliorer tout le chemin de fer entre le Sénégal et le Mali il avait refusé non donc dites-vous donc France yàgg naa bëgg a embargo Mali dafa xamul fu mu ko fu mu ko jaar France yàgg naa embargo Mali mais regardez Mauritanie ak Mali benn la xool leen Mauritanie ngeen xool Mali mais benn la la Mauritanie et le Mali xool leen Mauritanie xool Mali c'est là Mauritanie Mali ngeen xool Sénégal du n'importe quoi mais regardez la carte xool leen carte bi mais Mauritanie moo ëpp frontière donc ñun li nga xam ne loolu moo ñu indi woon loolu loolu ñun li nga xam ne loolu moo taxoon Mali ñëw ci ñun loolu wërsëgu yàlla rek lañ ko mën a mais le Mali n'a pas besoin du Sénégal et aujourd'hui tous ces conteneurs vont aller en Mauritanie transit Mali et tout ce commerce que le Sénégal faisait avec le Mali maintenant day nekk commerce triangulaire léegi Mauritanie moom mooy servir Mali nga defee ne boobu eh, eh, kooku kan lay dimbali Macky ton na embargo ça aide la Mauritanie et le Mali et ça paralyse l'économie sénégalaise Mali Macky quand même boo bëggee loo bëgg bëgg bëgg France loo bëgg bëgg bëgg dimbali France mais na nga xalaat sa sa sa sa les mécaniciens sénégalais ñoom ñooy répa ñoom ñooy réparer oto malien yi jaaykatu pneu Sénégal yi ñoom ñooy jaay malien yi pneu Mali fui fuel gasoil essence bi nga xam ne mooy dem ci oto yooyu Sénégal lañ koy jëndee lu bari ndax ñoo nga fa Macky qu'est-ce que tu veux faire avec ton économie lan nga bëgg a def avec l'économie sénégalaise économie sénégalaise bi nga defee ne ubbi ay stade di inaugurer ay stade di ñu wax ay stade de premier étape combien d'argent avons-nous perdu depuis que tu as construit cet stade parce que chaque jour tu perds man ci sama calcul bu ndaw euh, entre la formel et l'informel parce que Sénégal c'est quatre-vingts pour cent informel vingt pour cent yi rek mooy formel donc bu dee quatre cent milliards ngay gagner dans le formel il y a déjà huit cent milliards cent à mille milliards yoo xam ne mi ngi ci informel bi diggante jënd gerte yu ndaw yi diggante defar pneu diggante mécanicien bi ngay fay liquide diggante jaaykatu gasoil bi ngay fay liquide Macky boo xoolee y a mille milliards donc y a mille quatre cent milliards entre le Sénégal et Mali boo xam ne yaa ngi koy ñàkk ay réew la yoo xam ne dañoo takkaloo xaalis bu bari la ñuy dugal te del ndax ci dolli douanier yi foo taxaw joxe sa policier yi addu kalpe yi foo taxaw joxe mais Macky yaa ngi rey sa économie dëkk loolu soxlawul tu n'as pas besoin d'un génial pour te le dire you don't need a genius to tell you da Macky you do not need a genius you are mais tu es un idiot te balaa ñuy dee nag vous venez toujours et nous faire de la politique chaque jour lu ñu wax ngeen indil ñu waxu politique mais avion yi mais Macky attends mais Macky attends tu paralyses ton économie mais makki tu es en train de paralyser l'économie sénégalaise tu ne fatigues pas les Maliens les Maliens vont s'en sortir parce qu'ils son avec Dieu et les Maliens ont option. Mais quelle est l'option sénégalaise Parce que tu fais l'embargo entre le Mali et, la, et, et, le Sénégal. Les Maliens vont en Côte d'Ivoire et ils vont... Euh, non, non, non, Ils vont en, et ils vont en Guinée. Les Maliens. Ils vont en Guinée et en Mauritanie. jeex na ñoom seen problème c'est réglé maintenant Macky toi tu règles comment ton problème parce que les Maliens ils vont souffrir pour un mois Parce qu'on connaît les conteneurs, ça prend entre 30 et 45 jours. Les conteneurs. Donc maintenant, les Maliens, ils vont souffrir pour 45 jours. Après, tous les conteneurs maliens vont aller commencer à descendre en Mauritanie et en Guinée. Transit Mali. Donc maintenant, Maki, le problème du Mali c'est réglé. Maintenant, comment tu vas le problème du Sénégal Sénégalais, ils n'ont pitié. Maki, boo leen ko laajoon dix permis de marche pour ànd jikko yi sàmm jikko yi dina leen ko jox fan yi boo leen ko laajoon dix permis de marche pour ASP dina leen ko jox xam nga pour lan parce que dafa bëgg affaire Mali bi buñ koy tudd ci waxtaan mais bépp waxtaan bu war a am tey ci Sénégal ci affaire Mali la war a dem bépp waxtaan bu ñu war a waxtaanee tey ci senegal diggante Mali la ak senegal demal nga laaj suñu yaay yi ci connais combien de coups d'appel on ci ay léegi même jaaykatu gerte yi dañ ñuy woo ñu ne ñu Tunkara mais ñun torox nanu parce que lépp loo xam ne dañ ko daan am ci oto yooyu daan jóge dakaar di dem Mali makki tëj na lépp ay maire yu doon jaay seen ñambi ak soos seen akara seen pastel seen soupe seen fondé tout c'est tey boo demee Kaolack mais masiba naaru laay moo fa am transporteur malien yi yoon yi ñu doon jaar yëpp les gens sont foutus Macky da nga daan romb jaaykatu gerte boo xam ne day wékkoo ay mbuusu gerteem bu camion yi doyee mu leen koy paas Macky c'est fini mais tu es en train de paralyser ton pays et tu vas t'asseoir là-bas pour nous donner des leçons de morale que toi tu Euh, tu es à la tête de l'Union africaine. Quelle Union africaine Mais on a problème au Sénégal. Ghana a problème. Parce que Ghana ne fait de transport entre eux et le Mali. Mali, dara du jóge Ghana transité Mali. dara du jóge Côte d'Ivoire transité Mali. y avait le commerce intérieur of course mais ay bateau Mali du du wàcc Côte d'Ivoire la le seul perdant le Sénégal. Le seul perdant, c'est nous. Tu connais la réalité. Pourquoi tu fermes les yeux Alassane Ouattara moom yàlla weer na ko moom génn na di wax ak Boubou Cissé mu ne les Maliens ils vont voir wala nangam nangam mais Alassane il connaît la réalité du Mali Alassane connaît les fils maliens c'est des fils dignes ils ne vont jamais vendre leur dignité le Malien ne vend pas sa dignité hein il faut ngeen xam loolu boo leen demee Mali di ngeen xam ne lépp dëgg la ñooñu du ñu jaay seen dignité ils vont souffrir mais ils vont s'en sortir le le Mali est indépendant Mali am na indépendance ana bu Sénégal nous on indépendant quand parce qu'on n'a pas d'indépendance ñaari at buñ ko dundaatee ak maki wallahi billahi tallahi ah, ah, il azim dinañu dinañu dem ba mburu sax duñ ko mën lakkati ci Sénégal yàpp moom forget it yàpp moom léegi baadoolo dootu ko lekkati ci Sénégal léegi baadoolo dootul lekkati yàpp ci Sénégal il va rendre Auchan riche mais Auchan sax pour nga mën a jënd ci moom il faut nga am xaalis parce que avec ces fermetures de frontières les gens Macky est en train de faire ma waxleen leen Et si vous regardez les événements de mois de mars, quand moi, c'est du Auchan. Ces fermetures de frontières, qui s'en profitent Auchan. Quand moi, profite Auchan. Maki, dafay jël Auchan, li mu ñàkkoon yépp ci xeexu mars bi, mu delloowaat ko ko dans un mois. Maki wañaar na loxo sénégalais yi ba mu ba mu tar lépp loo xam ne dencoon ngeen ko lépp dina génn. tabaski ah, tabaski moom fàtte leen ko ay xar yu joge Mali moom sama mbokk yi di kaalaw di ko indi jamais loolu du am fu muy jaar ça passera où cet embargo Macky Mali dina ko Macky dina ko def ba app maanaam il est en train de continuer d'appauvrir les Sénégalais d'une autre xam nga déjà Macky ni muy doxee mooy le système machiavélique tu appauvris ton peuple pour après ñoom ñëpp ñu ñëw daw sa ginnaaw nga leen di jox dërëm ak ñaar dërëm pour ñu dépendre ci yow donc pour Macky appauvrir sénégalais yi moom wàññiw ko dara il est dans son rôle lii la doon lijjanti moom avant Macky mi ngi rey ñëpp silencieusement chaque jour nag mu wut pexe bu bees chaque jour mu wut pexe bu bees sëñ bi ku bañ ñun li ñuy wax sax boo ko dégloo nga jël ko nga analyser ko di nga xam ne que li ñuy wax dafa yanu maana mais entre le Sénégal et Mali lu mu bon bon bon bon bon cent milliards par mois daan na ci dugg cent milliards parce que seulement le côté formel rien que le côté formel quarante milliards dina dugg formel côté formel rek 40 milliards dina dugg mais informel na te Afrique ñun informel bi moo ëpp doole formel bi maanaam loo xam ne duñ ko def ci ordinateur ce qu'on ne met pas dans l'ordinateur c'est plus que ce qu'on met dans l'ordinateur parce que en Afrique 80 60 pour cent des Sénégalais n'ont pas d'éducation de deuxième degré boo xam ne sen lépp dañ koy enregistrer non non non Ils vendent cash avec cash. Aller-retour. Maintenant, avec ce cash, eux, ils vont tourner et aller payer les factures et payer d'autres choses. C'est ça la réalité. Maintenant, dans l'économie sénégalaise, si tu pèses exactement le bénéfice du Mali sur le Sénégal, mais c'est extraordinaire. Parce que c'est les Maliens qui amènent les conteneurs chez nous. C'est eux qui payent le dédouanement. C'est eux qui nous payent. C'est pas nous qui payons les Maliens. Le Sénégalais ne paye rien aux Maliens. Seulement le, le carburant qu'il va acheter au Mali. C'est tout. Quand nos camions arrivent au le seul petit bénéfice que le Mali bénéficie du Sénégal, c'est le petit carburant qu'on Mais les Maliens nous payent des frais de taxes, de douane, et ils payent des taxes de transport sur nos chemins, et ils achètent le manger dans notre pays au, au, autour de tout ce parcours ministre du transport xam na ci dara c'est le beau-frère du président de la république allez demander Mansour Faye embargo bi ça fait quoi à Macky Sall rien du tout Macky il mange je vous montrer le port le port de Dakar et vous vous me dites ce qui se passe voilà euh, ce vidéo Ça dit que sanction Mali, la décision de la CDAO de voilà. fermer les frontières de ses pays membres avec le Mali commence déjà à se faire ressentir au Sénégal. Au port de Dakar, ceux qui s'occupaient de la déclaration, de l'enregistrement et de l'acheminement des marchandises venant du Mali ou allant dans ce pays ne savent plus à quel sein se vouer. Ils se tournent les pouces à longueur de journée. La vérité est que 70% de leurs dossiers quotidiens concernaient le Mali. Ah, mais ça nous a pénalisé hein, depuis lundi. Depuis lundi, on n'a pas travaillé. Tu nous les déclarants, c'est nous qui traitons tous les dossiers ici, au niveau de Gaindé. C'est nous qui font euh, la saisie, voilà, le traitement des dossiers. Maintenant, il y a des agents qui sont ici, c'est eux, mêmes qui partent à la douane pour faire le circuit. Euh, ce blocage euh, empêche euh, le, le dédouanement des marchandises actuellement. Il y a aussi des produits périssables, comme les poissons et j'en passe. Donc, nous voulons le, le, plus rapidement possible des solutions. La douane sénégalaise ne travaille pas en ce moment. Parce que euh, la majeure partie ici, la majeure partie, la majeure partie ici au port, la douane la douane sénégalaise euh, presque soixante-quinze pour cent des dossiers maliens par rapport aux dossiers sénégalais ici. Les régions frontalières Mali au Sénégal en souffrent Je prends l'exemple sur la région de vingt cinq kilomètres de la frontière. Aujourd'hui, euh, les denrées alimentaires ont euh, les prix ont augmenté à une euh, Donc ce qui fait l'affaire de certains commerçants au détriment de la population. Déjà, ça une conséquence. deuxième conséquence, c'est que euh, le port de aussi sera saturé à 100%. Parce que comme mon collègue plus de 70% du fret malien qui transite par le port de Dakar. Franchement, aujourd'hui, la station de blocage, là, elle est vraiment pénible pour dans la mesure où nous sommes là, euh, tous les dossiers sont bloqués, on n'arrive pas à travailler, pratiquement tout à l'arrêt. Je ne sais pas si vous avez même fait un tour là où les véhicules transitent pour aller au port, à si les deux voies de Bel Air, pratiquement a pas de camions au niveau du port. Ça commence à être saturé aussi. Vraiment, cette station, elle est vraiment pénible pour nous. Vous savez, c'est vice-versa. C'est vrai, du Mali transitent ici a pour venir vers le par exemple, le bétail. Le Mali ravitaille le Sénégal sur le plan du bétail. Bon, si cette situation perdure, nous avons tous peur que, même dans l'avenir, les kilos de la viande ne va augmenter, aller jusqu'à 10 000 francs. À ce rythme, les conséquences dépasseront toutes les prévisions. Les déclarants en douane et transitaires, qui n'alertent pas que pour leur sort, attirent l'attention des autorités. Il faut, selon eux, qu'une solution de sortie de crise soit vite trouvée. Je lance un message fort à euh, notre président Macky Sall voilà il n'a qu'à parler avec la CEDEAO voilà nous sommes des Sénégalais il y a les Maliens ici qui nous amènent beaucoup d'argent voilà en ce moment-là on est on est resté depuis jusqu'à aujourd'hui c'est jeudi combien de jours quatre jours on a perdu des milliards. nous lançons un appel solennel surtout à nos autorités surtout le président de la République du Sénégal pour qu'il euh, décante la situation le plus rapidement possible. Parce que ça perd euh, sur, le plan, sur le plan financier. Il y aura des, il y aura des conséquences. Mon pays, le Mali, traverse une période tragique de son histoire. Le Mali est confronté à plusieurs problèmes. Les problèmes de terrorisme, des djihadistes. Et le Mali est maté à l'intérieur et à l'extérieur par des gens mal intentionnés, si je peux m'exprimer comme ça. Donc moi, ce que je peux rajouter, c'est de demander aux autorités de s'asseoir sur une table, discuter, chercher des voies et moyens pour sortir de cette crise. Ça n'arrange ni le Mali ni le Sénégal. En attendant, ils croisent les doigts et espèrent que les deux parties se retrouvent sur la table de discussion, car en dehors de l'aspect économique, le Mali et le Sénégal sont des pays frères qu'aucune frontière ne devrait pouvoir séparer. te lii te lii benn la xam nga ñu bari duñu comprendre loolu lii benn effet képp la Ça, c'est seulement le de Dakar. Ça, c'est les travailleurs du port de Dakar, les transitaires. suñu yaay yi jaay gerte bu ñu génnoon jaaykatu banaana yi génn jaaykatu orange yi maanaam les commerçants baana baana yu ndaw yi taxaw ci buntu tali yi ñooñu yëpp tey bu ñu la waxoon embargo bi Macky li mu def sa digganteeg Mali wallahi azim xanaa doo tëdd boo tëddee doo nelaw moi je ne comprends pas gars yi bëgg nañu bàyyi nii waxu Mali mais on est dans une catastrophe on est dans une situation catastrophique le Mali a signé l'accord avec la Mauritanie kan moo dee ku sonn naa naa <laughs> Mali ñi sonn kan moo nekk di torox fi mu toll ni pas le No! Not kan moo nekk di sonn fi mu toll nii kan mooy torox fi mu toll nii kan moo nekk di torox kan moo nekk di Sénégal parce que je vais vous dire une chose le Mali a signé l'accord avec la Mauritanie c'est fini pour nous Maliens et Mauritaniens formalisent officiellement ils ont de renforcer leurs échanges commerciaux l'acte a pour but de faciliter le trafic routier inter-État de marchandises sur le corridor Nouakchott-Bamako. La Mauritanie, en mettant son port et les autres infrastructures à la disposition des opérateurs économiques de notre pays pendant ces temps difficiles, réaffirme sa solidarité au Mali et le ministre du Commerce s'en félicite. Je viens avec un message de la part des plus hautes autorités de la République pour d'abord remercier le dynamisme de la République islamique mauritanienne par rapport à la manifestation de sa solidarité vis-à-vis -vis du peuple malien dans des moments aussi critiques. Parce qu'on dit, c'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses amis. Je serai l'ambassadeur de cette rencontre au euh, pays pour montrer la dynamique des autorités de la Mauritanie pour accompagner... Maki, de tu Mali. nous as assez appauvris avec tes surfacturations, ton vol, détournement des deniers publics, Macky les Sénégalais on assez souffert Sénégalais yi li ñu souffrir doy na loo ñu ci tegal ñu dorox dafa doy sëkk Sénégalais yi on a souffert de tout bord ci boor bu ne nag on a souffert lan nga bëgg ñu def Macky lan nga bëgg Sénégalais yi def sénégalais yi sonn nañu sont fatigués nos mamans sont fatiguées maa ngi gis kenn di bind léegi mu ne tailleur la mais danoo son gis naa ko bind mais ñëpp a ko sentir tailleur bi maanaam jaaykatu tissu bi lépp lépp lépp jaaykatu kii yi nag cuub cuub cuub cuubu Mali yooyu jaaykatu cuub yi nag guro sax xanaa sey moom dinañ ko gëj a takk ci Sénégal xanaa guro wala léegi sey tàngal mant lañ koy takkee je ne pas parce que ñun suñu guro sax Mali lay jóge guro bi ñu yëy sax Mali lay jóge mais Macky lan moo xew qu'est-ce qui se passe da ngay gën a guddal tali bi rek mais sénégalais yi ñoom dañuy souffrir maliens yi ñoom dañuy nekk ci jàmm parce que Mali ñoom li ñu doon indi Sénégal di ko jëflanteeg senegal man nañ koo jëflanteek Mauritanie Mauritanie di am lu mu jëflanteeg Sénégal Mauritanie day day day bénéficier wu ñaari yoon Mauritanien léegi mën naa jël guro jënd ko indi ko Mauritanie jaaye ko Sénégal triple bi mën naa nekk léegi Sénégal moom mënta génnee dara yóbbu Mali imaginel parce que conteneur yi mënuloo ne conteneur transit de Mauritanie après nga transité ko Mali manta nekk c'est pas possible donc yow sa dawarkatu camion yi ak sa maire yooyu nekkoon diggante Tamba diggante euh, maanaam Dakar ba Mali ñooñu yëpp toroxal nga leen ñooñu mënuñoo jaay Mauritanie ñooñu mënuñoo toxu dem Mauritanie c'est pas possible gars yi dañu nekk ci ay jafe-jafe ñu bëgg information bi ku ci jot nga partagé ko dagg leen ci loo leen man dugal leen ko foo leen bëgg euh, youtubeur aussi partagé leen ko def leen ci loo leen bëgg ñuy ñaan ñëpp aussi ñu nekk ci page bi nii ngeen partagé information yi pour sénégalais yi yeewu balaa muy trop tard parce que suñu jógul léegi xeex ak Macky Macky fa mu toog mi ngi lekk Marème xiiful xam nga amadu moomu ngay gis Macky Amadou Sall moomu ngay gis kooku bu lekkul trois ans sax xiif du ko rey ndax kooku limu yor dencal na ko boppam comme chamo maanaam du dee xiif du ko rey xam ngeen loolu Macky famille am dara du leen jot kii va souffrir dans tout sa c'est les Sénégalais embargo bii Macky lii doo ko fekkee lii de boo ko fekkee ma xam ne man Tounkara mi lu bari lu may wax xaw ma ci dara incha allahu embargo bii Macky ragal naa ne sa fin la fin de ta reine viendra dans cet embargo incha allahu rabbi parce que yow doo nit parce que nit kuy dem ba coxorteem yóbbu na ko ba ci toroxal réewam ci boppam mais Macky donc lan mooy sa njariñ pour nekk suñu njiitu réew parce que njiitu réew pour njëriñu askan la mais njiitu réew boo xam ne pour toroxtaange askan la y' a problème yaa problème yaa problème on na un grand problème chez nous gars yi waxtaan bii nag day soog a tàmbali tey incha allahu bis bu ne dinañu indiwaat waxtaan yi pour partager leen ko parce que dañu bëgg a euh, doomu sénégalais yeew ngeen profito ci nag ngeen dem bindu wax nañ leen ko dem leen bindu. dem leen bindu ngeen lijjanti seeni ay carte d'identité Macky warul am trois députés ci assemblée nationale au Sénégal trois députés waru ko fa am parce que comme moom moom ak ña ànd ak moom yàq Sénégal moo leen tax a jóg ñun nañ leen sanctionné na ngeen partager information yi ne leen suñu yaay yi buñ fi jëlee député Macky yi ñun dinañu forcer Macky ci assemblée nationale bi mu dindi embargo bi digganteem ak Mali ou bien on le fera chuter parce que problème bi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund tey lépp Macky teg ko ci suñu biir kaw bopp yi ñun moom mu nekk ci jàmm et je pense que loolu dafa war a dàkk ci Sénégal man mënumaa comprendre coxorte bi nga xam ne moom moo nekk ci waa ji jëmale ci Sénégalais yi ah mais les transporteurs kuy grève day fekk nga lekk les transporteurs sont bloqués à la frontière ñoom kay fi mu toll nii ne amuñu choix lu dul grève parce que bu ñu grèvul seen xaalis sax transporteurs yi dinañ dem ba duñu amati lu ñu lekk wala lu ñu naan mais xewoon na fi ci taawu mbas mi bi suñu euh, euh, quelques jeunes sénégalais yooyu euh, bloqué ci ci frontière u la yeeg yooyu xewoon na fi mais bi yoon c'est un cas ex extraordinaire mais li nekk di xew diggante Sénégal ak Mali ku ko xam dangay ngay jooy ba deemeen isaat de per de famille qui ne peuvent pas retourner chez eux ils sont tous bloqués à cette frontière embargo embargo ba ci lan embargo fu mu mën a am ci àdduna bi dangay bàyyi ba nit ñi yëpp dugg ku nekk livré nga ne leen dara dootul dugg da ngay joxe date nga ne leen yéen ñi nekk ci yoon bi am ngeen vingt jours pour yegg côté bale décharger lépp jeex nga nga publier publier ko ci télé yeeg rajo waaye jékki-jékki rek teg ay frontière la da ngay embargo yow sénégalais yi ngay toroxal ban malien moo ci torox ban malien moo ci torox yow sénégalais yi nga nekk di toroxal en plus parce que boo jékki-jékkee rek nga tëj frontière noonu brusquement quand vous avez annoncé ces embargos Alassane Ouattara camion yoom yi nekkoon ci frontière bi est-ce que dégg ngeen ñu fi jooy beneen frontière bu dul frontière Sénégal Mali dem leen ngeen xool Mali a Côte d'Ivoire il y a pas de problème là-bas parce que Alassane Ouattara a laissé tous les camions traversés En Europe, c'est la même chose. En Europe, comme aux États-Unis, la diaspora, ce qu'on vous dit, c'est que nous devons élire député de la diaspora. Donc, pour am il faut que vous vous enregistrez sur ces listes. Je pense que je viens même de recevoir euh, un SMS ou bien euh, un SMS là, du parti du PASTEF. à l'occasion de la révision exceptionnelle des listes électorales, PASTEF USA vous prie de bien vouloir remplir le fichier Pastef Pastef USA euh, yónnee nañu benn lien gars yi boo leen ko mënee partagé ma épinglé ko wala ma partagé ko ñu ne pour ngeen enregistré wu pour l'inscription du fichier mais man nag comme dama bokk ci Yewwi Askan Wi donc je parle déjà de Yewwi Askan Wi donc Yewwi Askan Wi ñun ñëpp dañoo war a taxaw ànd doon benn ànd doon benn pour xeex lii nga xam ne moom mooy vraiment li sonal nii Sénégal lool embargo bi toroxtaange bi muy indi Sénégal kenn xamul nu mu toll donc gars yi maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ñaan yàlla combat bii ñu dëgmal yàlla may ñu ci ndam ba sénégalais yi delluwaat ci seen jàmm parce que Macky sàll ku ko may tuuti mu yàqal ñu Sénégal te man toujours wax ji wax ji wax ji day ñëw di ñëwaat mais j'avais entendu un jeune député à l'Assemblée nationale du Sénégal boo xam ne daf ko wax waxaat wax waxaat wax waxaat je ne sais même pas si sénégalais yi dégg nañ li mu wax waaye ku déglu li muy wax di nga am lu bari loo ci jàngat gars yi ma xool déjà ma déglu loo leen. dof dans l'ombre au quotidien pour rapprocher les positions. Et dès lundi, nos ministres seront à, à, pour travailler avec les autorités de la transition sur un schéma de transition raisonnable. Et si ce schéma est fait, nous pourrons lever immédiatement les sanctions qui aujourd'hui font souffrir le peuple malien, qui est un peuple ami et frère. Et c'est de la douleur pour nous également que nos frontières sont fermées. Donc la solution appartient aux autorités de la transition. Nous sommes totalement engagés. Hier encore, j'ai demandé à l'Algérie Nous demandons à la CEDEAO de travailler, de rapprocher les positions. Donc nous le faisons en tant que président de l'Union africaine. Je n'hésiterai pas, s'il faut aller à Bamako, à le faire pour travailler avec nos animaliens parce que cette situation ne peut pas perdurer. Regardez la conséquence déjà sur le départ des troupes européennes et des troupes de Balkans. Quelles vont être Au-delà des réactions immédiates. Il nous parle des troupes françaises. des Nations Unies pourra-t-elle rester regarde c'est une grande équation. déglul qui va la sécuriser. mi ngi waxal France. puisque Moussa Faki l'a dit c'est une mission de maintien de la paix avec des casques bleus qui n'ont ni le matériel pour faire la guerre ni le, le mandat donc s'il y a plus ces forces comme Barkhane qui étaient là avec les moyens logistiques le renseignement comment on va assurer la, la pérennité de la mission même des Nations Unies au Mali la France Vous écoutez cet idiot. Est-ce que vous écoutez Macky Sall est-ce que yéen a ngi déggu Macky lii la France dama leen bëgg a wax France mooy paaka ñaari boor France day ñëw sa réew witti lépp wala ma ubbil sa réew doomu réewu euh, président yi ñu sàcc kii ma leen di woon nii doomu président Guinée équatoriale la ku ma xamal ku ma xam la personnellement Théodore Terino déglu leen ñaata alal la bàyyi France France saisir lépp jël ko moomee ko seen bopp te pourtant il est là mais Macky mbaam la Macky est un naan. Todorino Biang habite avenue Foch, dans les beaux quartiers. Après des mois d'enquête, les policiers passent à l'action. Ils saisissent toutes les voitures de luxe du ministre africain. Là, vous avez euh, une Bugatti Veyron. Ça fait euh, plus de 1000 chevaux et 407 km/h. Là, c'est une deuxième Bugatti Veyron. ay Bugatti déjà, Veyron. Euh, sur ce, cet étage de camion, vous avez 2 400 000 euros. 2 euros. Voiture, vous ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Théodorino Biang est ministre de l'Agriculture et des Forêts et tout récemment vice-président de la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique de l'Ouest dirigé d'une main de fer depuis 34 ans par son père, le général Obiang. Le pays est riche en pétrole,

Quand les policiers entrent pour perquisitionner, ils découvrent un luxe incroyable. Ce sont des immeubles de très grand luxe dans lesquels vous avez à la fois salle de sport, salle de coiffure, euh, discothèque, euh, salle de réception euh, au pluriel, euh, cuisine, niveau euh, de grands restaurants, etc. Alors, on est sur des immeubles vraiment de très très grand standing. Six étages, 101 pièces.

En 1998, nous avions filmé Théodorino Biang en exclusivité. un peu froid hein, ce matin. du ma teg vidéo bi yëpp ba mu jeex ndax xol buy metti ndax France day ubbil suñu doomu président yi tey boo xoolee Amadou Sall par exemple il a toutes sortes de biens en France à Dubaï et partout dans le monde Amadou Sall doomu président Macky Sall li mu yor ci àdduna bi kenn xamul nu mu toll nee naa leen Macky Sall moo ëpp Sénégal alal maanaam Macky Sall bu Sénégal amoon mille trois mille milliards ci kontam Macky Sall yor na six mille wala dix mille milliards Macky Sall dorado yi ñooy ay xaritam léegi les les grands tu multi multi milliardaires ni ñooñu lay solo léegi bay sol seeni ay mbaxane ki di réyal bii rek di di ngand ngandlu boo leen seetaan ay ay série télé dem leen xooli comme série Dallas nit ñaa ngi souffrir waa kawlax ah yoon bi yëpp jógee senegal ba Mali ñëpp a ngi souffrir tout le monde souffre vous voyez ce que ce qui se passe chez nous on a des dirigeants marionnettes qui ne sert que la France, ce n'est pas des patriotes, c'est des traîtres. Ce n'est pas des patriotes, c'est des traîtres. Par le vrai sens et le vrai nom traître, Macky Sall n'est pas un patriote. man yenn saa yi bu ma déggee ay nit di lim patriote quelque l'autre jour quand je vous dis Cheikh Omar Niébé nous parle de Macky Sall et il nous parle de patriote il faut aller voir dans le dictionnaire ce que signifie le patriote monsieur Cheikh Omar Anne. Après, tu viens, tu reviens avec ta petite connaissance et ton crâne vide pour nous expliquer ce que tu as lu. Et je pense que c'est une honte pour notre pays. C'est vraiment une honte pour un Africain d'appauvrir un autre pays africain au profit de la France et au détriment des Africains. Mes frères et sœurs, Euh, au revoir jusqu'à un autre jour ba suba incha allahu rabbi dinañu ñëwaat mu ne un Nigérien est mort tout récemment et a laissé cent cinquante millions de francs suisses à la banque mais oui <laughs> mais y en a beaucoup quand on vole l'argent et on le met dans les comptes d'extérieur dans les comptes des pays étrangers ou dans les paradis fiscaux Mais quand on meurt, c'est saisi par ces pays et l'argent sera utilisé pour développer ce pays. Cet argent ne sera jamais retourné au pays originaire. Jamais. loolu dafa leer loolu kay moom paradis fiscal loolu mooy bénéfice am mooy dangay ngay sàcc dem denc fa waaye bis boo fa dee bis boo dee yow ñoom lang fa denc dañ koy jël tànk yaa ngi dund xaalis boobu yow ñemeetoo ko jël parce que tey xaalis bi ñuy sàcc ñoom ñu dem ci paradis fiscaux yi di ko laal parce que dañ leen di gis flag international euh, la loi entre anti corruption internationale dañ koy gis donc ñoom dañ fay nëbb xaalis nëbb ko nëbb ko nëbb ko ba mujjee dee bàyyi xaalis boobu c'est de la lâcheté c'est pur et de la lâcheté et de la méchanceté te Macky Sall encore ñu ñëw rappelé waat rek sénégalais yi ne la France la France a dit que ils vont en profiter de Macky Sall à la tête de l'Union africaine pour leur débarrasser, amin, pour leur euh, euh, euh, ramener euh, leur dignité en Afrique. ma indil leen vidéo boobu ñu tëjee ko incha allah déglu hmm. France moo ko wax à ah, Anne Hidalgo. Alors, à propos de la présence France. française euh, au euh, Mali, vous aviez déclaré il y a une semaine que euh, les forces, euh, les troupes françaises de, de Barkhane devaient euh, rester. Hier, la junte militaire au pouvoir

Là, en l'occurrence, c'est évidemment le régime malien qui fait une mauvaise manière en renvoyant euh, euh, l'ambassadeur euh, du Mali. Et d'ailleurs, le régime malien a été rappelé à l'ordre par ses voisins, a été euh, rappelé à l'ordre par les chefs d'État africains, parce qu'effectivement, il faut retrouver un autre chemin que celui qui est emprunté dans plusieurs pays, notamment au Sahel, qui est celui des coups d'État militaires. mais en même temps, il faut que la France retrouve le chemin du dialogue avec les chefs d'État. Euh, parce que et, je pense qu'il faut euh, euh se saisir de l'opportunité euh, de Macky Sall, président du Sénégal, mais accédant là à la présidence de l'Union africaine, pour renouer ce lien-là, pour que l'on puisse remettre la France dans un rôle qui est le sien. Bien sûr. Il... France dafa war a profito ci limakisal nekk njiitu yu Union africaine pour rétabliraat li nga xam ne moom mooy dooleem ci Afrique c'est extraordinaire lii la wax ci télévision française ñun ñëpp déglu dégg nañ ko xanaa lii kenn du ñëw weddi ko RFI France 24 mi ngi nii ñu gis ko ñun ñëpp ñoo ko déglu amul kenn amul kenn koo xam ne di nga ñëw fii suba nga ne yow dégguloo lii gars yi maa ngi leen di jaajëfal di leen remercier di leen tàggu incha allahu rabbi ba suba euh, bu ñu ñëwee euh, waxaat euh, ñëwaat waxtaan mu ne Abdou Karim Gueye loo si xam amoo si point de vue en fait defe naa man maay soog a gis ni li nga xam ne moom ngeen wax wallahi lazim dégluwuma ci dara dégg naa nag Euh, ànd sàmm jikko koy bi ñuy def marche maa ngi leen doon déglu mais dégguma dara loo xam ne Karim yëkkati na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko dégguma ko euh, bu fekkee wax na ko tamit euh, peut-être on va l'écouter dinañ ci wax li nga xam ne ñun moom lañu xalaat mais je pense que bépp sénégalais am nga opinion sa opinion bopp la te sa opinion yow kese la concerné parce que ñun ñi gëm Ousmane Sonko gëm nañ ko ba pare te ñi ko gëmul. tamit duñ ko gëm wala ñi ko kiñaane tamit ñooñu tamit euh, sen seen xol yi dina metti lool ndax yàllaa ko fi teg te incha allah dinañ ko continuer bëgg mais non non non dégguma euh, Karim non dégguma ko vraiment dégguma ko ku am vidéo bi nag nga yónnee ma ko ma déglu ko buñ ko dégloo donc incha allah ñu wax ci li nga xam ne moom la ñu xalaat mais dégguma ko j'ai pas entendu voilà merci beaucoup et bonne soirée wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.